Habib euh, Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moro Marcel. voilà euh, Habib Diagne nga nekk président association pour le développement solidaire inclusif euh, déjà wax ñu seen association bi ci lan la yëngatu exactement euh, ñan ñoo ci nekk voilà ci yaatal. association bi c'est mu ngi tudd ADSI c'est l'association pour le développement solidaire inclusif donc ñun ñu ngi basé wu à Rufisque déjà donc ñu ngi créer ay ay ay action yoo ay activités yoo xamante ne si région yi euh, yemuñu rek euh, si à Rufisque donc association ñu si nekk nag am na ñu bëri parce que jigéen ñi ñu ngi si donc am na ay ndaw aussi am na ay ñi nga xamante ne c'est des c'est des handicapés ñu si nekk en même temps parce que des fois dañuy soxla leen soxla wala ñoo xamante ne ay interprètes en même temps ils sont dedans. d' accord euh, tey jii est ce que association bi financièrement am ngeen ñu leen di jàppale pour ngeen mën a def seeni activité bon bu dee bu dee pour journée de demain noono mais amoon nañ ko di ko travail am benn ONG boo xamante ne moom lañ doon liggéey pendant trois ans moom moo ñu doon jàppale ba ñu terminé ak ñoom programme bi le mois passé la ñu jeexal ak ñoom mais bu dee activité de demain moom. les membres de l' association ñoom ñooy cotiser seen biir. Mhm. donc di def ay activités quoi. Euh, kon nan ngeen fas yéene def ci bés bu ñu jagleel euh, xeex pour ñu dëppoo ak ak ak fu gune yi yéen seen association lan ngeen si fas yéene def exactement. moo lu ñu fas yéene def mooy dinañ mën a def parce que lépp looy def da nga commencer à la base donc dañ préférer dem si petite école yi donc waxtaan ak ñoom donc. Euh, di wax leen li nga xamante ne moy seeni droit ñu mën ko appliquer en même temps xam lii mooy seeni droit parce que tamit nit boo koy wax dara il faut nga koy xamal lii droit am la ndax moom mën a gën a xam à cent pour cent ay droit am donc na loolu dinañ ko def sensibiliser leen en même temps wax leen seeni droit en même temps. Mm-hmm. naka nga gisee ni ñuy jalgate ak ak yelleefu xale yi fii ci euh, Sénégal euh, par rapport bu ñu ko euh, sax tëkkale ak société occidentale gis nga ni foofu dañoo jox gëdd xale bu baax a baax fi ñu toll nii nag fii moom xale yi gis nga ni ñuy jalgati ak seen ak ak seen yelleef ban jàngat nga si am ñàkk gëdd bi nga xam ni joxuñ ko gune yi fii ci société bi waaw ñàkk gëdd bi moom mën nañ ne xale yu tey il faut ñu xam ne ñoom ñooy doon yi magu ëllëg réew yu bari yi dox soo xoolee boo demee ñi gis ni ñuy doxalee yu bari dañoo fonk seeni ndaw parce que xam nañ ne xale buñ teelee def si ñoom dara ëllëg ñoom ñooy mën a réew mi ñooy am taxawaay ñooy mën a changer lu bëri mais fii dafa am yu bari yoo xam ne dañ ko dañ ko sànni droit xale yi amatul maanaam ñi ñi ko xam sax bëreetul doo dox ba gis kenn koo xam na ne mën na la wax ne kat lii droit xale bi la wala nangam parce que soo waxee ñu ne xale bi amul warul warul wax waruñu ko taxawee nii boo xoolee problème yi ñuy jànkonteel yëpp société bi yëpp parce que lool moo koy waral maanaam xamul lu ñu à cent pour cent li nga xamante ne nii mooy ndaw yi naka lañ leen war a mën a téye ba xale ëllëg mu mën a kenn dara am taxawaay à cent pour cent d' accord ñu gis ni si euh, lu ñuy wax exploitation des enfants gis nga ci mbedd ndakaaru yi ay xale yu ndaw ay tout tànk euh, ñoo ànd ak seeni wayjur euh, di yalwaan ñu ngi ci mbedd mi cinq heures six matin ba guddi naka nga gisee mbir moomu laal wàllu mendicité wala sax ñi nga xam dañuy mbubboo seeni doom pour yalwaan ci mbedd mi. waaw loolu dama gis ne dafa nekk loo xamante ne ni ñu ngi koy seetaan. te bu bu bu yàggee dafay ëppi loxo parce que da ngay romb même ñun mën naa joxe exemple dans les tunnels yi nga xamante ne moo nekk au niveau de de tey de wala Dakar dangay gis ay xale ñoo fay nekk boo rombee ñu tey sa loxo àndax yow dèjà yóbbu boobu ñuy yóbbu rek lu ne mën na fi xew dèjà imagine toi xale boo xamante ne heure boobu am na feneen fu mu war a mën a nekk mu mën a jàng wala ñu mën a xool la lañ war a mën a def ci moom. mais ñu koy jël kay yalwaan loo mu ànd ak ay parents donc loolu il que ñi nga xamante ne ñooy suñu autorités yi fi nekk donc ñu ut taxawaay bu amaam solo parce que des na parce que xale moom bu fekkee ne dañ koy bàyyi ci mbedd journée parce que ba ñu xoolee gis na def nañ jàngat ne aussi genn wàll yëpp dëkkuñu Sénégal am na ci ñoo xamante ne dañuy jóge ay Guinée hmm. donc ñii fu ne la ñuy jóge donc nekk na loo xam ne il faut ñu bàyyi ci xel xool naka la ñuy war mën a def ba nga xam ne xale yooyu ñu jëm leen sauver tamit aussi Mm. Euh, liggéeyu xale yi maanaam xale yi nga xam ne ñu ngi leen di liggéeyloo te euh, jamono ji waroo leen fekk ci école yi ñuy sàkku xam-xam ci atelier yu bëri soo fa demee da ngay gis ni euh, xale yi dañu exposé wu ci danger yu bëree bëri naka nga gisee aussi liggéeyu xale yi nga xam ne aussi dañ koy tere mais ñu ngi koy def fii ci Sénégal. waaw parce que xale moom am na liggéey yoo xam ne boo ko teelee def rek kooku da koy force maanaam ñun Sénégal amuñu habitude. pour ñoom xale bu dëgëree bopp rek dañ naan nañ dem yóbbu ko mu atelier moom jàng mëntu ci dara wala lii moom mëntu ci dara nañ ko jël ñu yóbbu ko benn atelier wala ñu yóbbu ko benn daara rek sànni ko foofu te loolu nekk na loo xamante ne ni nekkul luy dem parce que am na xale yoo xam ne ñu ngi dem si genre bërëb yooyu jaar fa di yàqu ñii duñu jaar am xam parce que xale bu ndaw a ndaw mënagul dara lu bëri donc dañ koy utiliser juste rek nga sonal ko pour rien du tout bu tàmmee dara tàmm ba tàmm xaalis gisul lu mu war a yor donc lenn lay day mujj obligé di sàcc donc loolu noonu il faut xale boobu déjà ñu mën ko dimbali parce que xale du ne lii rek dëgër bopp rek nga noonu nañ ko sànni foofu parce que ñu si bëri dañ leen sànni donc am na loo xam ne il faut ñu ñu ñu ñu xool naka la ñu war a mën a def ba xale yooyu dimbali leen wutal leen ay formation ñu former leen parce que dañ leen war a former ñi si xamante ne dañ leen war a mën a continuer seen jàng ñu jàppale leen ñu dem parce que am na ñoo ne seen i parents ñoo demeetul noonu. dañu leen mujj obligé bàyyi leen ñoom ñu dem ci liggéey te ñooñu war nañu mën a dimbali ñu mën dem jàngi Mhm. beneen phénomène aussi ba léegi laal àq ak yelleefu tuutànk yi mooy les enfants des yi xale yi nga xam ne ci mbedd mi la ñu dëkk ak génn nañ seen kër lan mooy responsabilité waajur yi yi nga xam ne seetaan nañ ba seen doom euh, génn ci kër yi di fanaan ci mbedd yi euh, mu nekk loo xam ni dañu respecté wuñ seen àq ak yelleef lan mooy responsabilité waajur yi par rapport ak phénomène boobu. waaw parce que parents yu bari. am na si ñoom dañoo daw seeni i responsabilité parce que taxawaay bi ñu war a am si seeni doom amuñu ko xale bu ñu ñëwee wala mu doon sax kenn koo xam ne xam na as tuut bu defee benn dégât bu ndaw rek nga ne ko génnal kër gi dem kooku maanaam yaa ngi koy may mu mën a li mu li mu li mu waroon mën a ñëw nga war ko mën a indi société bi yaa ngi koy dàq parce que day mujj obligé dem di tëdd si ay ay ay ay mbedd lu mu gis bu ko yorulee rek. ndaxay mu ñu dem jëli sàcc ko kooku dèjà yaa ngi ko war a dimbali mais yaa ngi koy yaa ngi koy bëmax kon donc moment yooyu noonu xale yi fa ñuy jaar dërkis dem ba benn ins boo xamante ne kenn mënatu leen téye parce que dañ koy tàmm parce que gisuñu ku leen ne ku leen ne bàyyil lii baaxul nañ def nii nañ def nale mën nga ñëwaat loolu yëpp xale yi amuñu ko donc loolu bu ko xale amulee nag paaraam sànni ko tamit day fippo te bu fippoo nag day def lu lu xelam lu ko xelam jox rek moom lay def voilà euh, beneen aussi euh, ponk bu am solo mooy tey ji Habib yow lan ngay suggérer autorité yu bees yi euh, pour ñu def ko ñu res ñu protéger bu baax a baax tout tànk yi mais aussi respecter seen àq ak seen yelleef lan ngay suggérer suñu autorité yu bees yi loolu mooy ñu fexe ba déjà ñu identique ñu sensibiliser déjà Euh, xam nit ñi xam bu baax a baax droit des enfants bu ñu fa jugee aussi ñu ñu ñu mën a ñu mën a jàppale xale yi xool fépp fu xale nekk rek ñu xam ne am na ñoo xam te ne ñoo leen war a jàppale ñooñu gaaw a dem jàppale fa xale yi lépp lu mënti xew lu yuru xale la ñu tel ko yóbbu si yoon balaa mooy balaa muy balaa muy xam te ne day nekk loo xam ne taxawal donc ñuy xaar tamit si état bi ñi nga xamante ni tey ñoo nekk si mbedd mi ñu recensé leen. xam ne ñii dëkkuñu fi wala nangam ak nangam ñu xool yenn solution lañ fi war mën a ut pour xale yi loolu tamit il faut ñu ut ko bu ñu paree si loolu tamit ñi nga xam ñooñu leen si mën a dimbali mooy ak préfet yi parce que préfet yi ñoom ñu xool am na ñoo xam ne dëkkuñu fi ñu jël leen yóbbu leen am ñoo xam dañuy jóge fii ba Kaolack mën nañ leen xool lu ñu leen delloowaatee parce que boo mënee bëggee defar yenn yenn yi ku bëri xale yi di nekk ci mbedd mi ak seen parents loolu il faut état bi jóg si am si taxawaay bu war a am am solo teg aussi li nga xam ne mooy ay formation dimbali ka pour ndaw ñi nga xamante ne tey jànguñu dafa ñu dara ñu mën a ñu mën leen dimbali ñu mën leen former loolu tamit ñu ngi siy xaar état bu Sénégal bu baax a baax a baax xale yi nga xam tamit amuñu kayitu juddu mm. état tamit taxaw si parce que ñu ñu mel ni ay village yu yoo xam dañoo sori balaa ñuy déclarer seeni doom rek dañuy am ay problème loolu tamit ñu ngi si xaar état bi tamit ñu dimbali si xale parce que am na parents yoo xamante ne mën nañ ngénte mais mënuñu déclaré ci donc loolu tamit il faut ñu am si taxawaay état dimbali leen ba nga xamante ne ni dañ mën a am xale yi am taxawaay bu baax a baax a baax. voilà kon Habib euh, ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga xam ne tontu nga ko suñuy laaj. merci beaucoup maa ngi leen di gërëm gërëm waa Rewmi FM bu baax a baax. voilà may fàttali ni Habib Diagne yow yaay njiital association pour le développement solidaire inclusif ñu lay remercier bu baax a baax jërëjëf. merci beaucoup.